الله أكبر الله أكبر والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بقي من سنة سنة سبحانه وتعالى di julli di sëlmal ci yonante muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaanal xeewal ak mucc moom ak i ñoñam ak i saxaabaam képp ku ko gëm tegu ci yoonam ba ko bis loole bu loolu weesoo ñu di dénk di dénk suñu bopp ragal borom bi subhanahu wa taala ci jéem a jëfe ndigal yi waaye moytu tere yi bokk jaam yàlla ñu xam ni kontaan loo ñëpp def loo xam ni ñëpp cay ànd lu kenn mënta am la ndax borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ni moo bindu ñëpp moom lépp taxut ñëpp nangul ko kon lu borom bi subhanahu wa amul nag yaakaar naa mi ngi wërta yaakaar ni war na kaa mën a am kon dégloo ñëpp def lu ñëpp ànd lu mënta nekk la loolu benn xikma la boo xam ni yàgg nañ kaa dégg waaye yàgg nañ kaa bamtu waaye saa yi nit ki gën a gudd fan gën jaxasoo ak nit ñi dana gën a am yaqiin ci dëggu goo xam ne xikma boobu dëgg na ko ndax nit ñi seeni rootuwaay dafa wuute seeni naanuwaay seeni xalaat dafa wuute seeni yëg-yëg ak seeni cafka dafa wuute seeni bànneex ak seeni gisin dafa wuute kon nag bu fekkee loolu moo am anakan ci ñun moo mën a def lu ñëpp ànd ak lu ñëpp kontaan boo waxee dëgg te dëggu ca ñu ni dangaa metti danga dëgër boo noppee bu ñuy wax ak yow wala ñu lay gis ngay nopp lu bari ñu ne dangaa yëg sa bopp dangaa xeeb nit ñi boo dee bëri looy ziyaara nit di ko visité mu ni dangaa metti commencé laa yi boo leen visité wut demoo leen ziar ñu ne yow danga dagg mbokk mbokk commencé di la ŋàññe bu la yàlla defalee xéewal nga wan leen ko ñu iñaana la boo leen ko nëbbee ñu lay yadd ci nëbb gi nga ko nëbb boo leen waxee dëgg ñu fexe ba changé say wax boo defee lu rafet tamit ñu fexe ba indi ca njot lu ñaaw fexe ba ñaawal ko boo dee muuñ ñu ne dangaa faible boo dee ñàngal foo toll ñu ne dangaa violent boo dee baale ñu ne tappet nga boo dee yëkkati nit ñi di teg ci suuf ñu ne dangaa bëri doole kon lii day tolloo rek daanaka kon ñaar ak ña nga àndoon benn góor góor ak jigéen war a yor menn mbaam bu ñu yéegee ñoom ñaar ñëpp ca mbaam ma ñu ne ñuy ñoo gàtt xel bu ñu doxee seeni tànk wa man mbaam ma ñu ngi ñuy ñoo dofee bu góor ga yéegee bàyyi jigéen ga ñu ngi kii nekkut ku élégant lu tax muy yéeg di bàyyi jigéen bu jigéen ga yéegee bàyyi góor ga ñu ngi kii dafa yaafus dafa ragal soxnaam te ñeenti yooyu nag benn ci mën a nekk kon nag nit ñi mënoo tee mënoo fexe ba duñ wax moo tax al imaamu yi ci benn xasida ci xasidaam yu am solo yi mu waxoon ci yu mel ni lu am solo boo reetaanee ñu ne kii xanaa du téye boppam téye ay cëram boo jooyee ñu ne xanaa du muuñ boo téyee sa làmmiñ ñu ne mënta wax boo waxee ñu ne dafa bëri wax bayam ca wax jeex kon lam ko jeexalee rek mooy fa ay fa ay fa ay kontu anni mahma aradtu ridan naasi la budda min an adum min an uzam am naa yaqin ni saa yi moo bëggee def lu kontaaloo ñëpp fokk ñu ŋàññi ma kon mbokk mi ci yàlla bu ñu bëggee am solution ci loolu nañu jëm a yeggale la des ci xikma ba ndax bi mu waxee ni gërëm loo ñëpp gërëm loo nit ñëpp lu mënta nekk la waaye dañuy gërëm loo yàlla bii la wala objectif la boo xam ne kenn bu ko bàyyi nit ku fu mu toll nay juger pour def loo xam dina ci am ngërëmu boromam subhanahu wa taala loolu kenn du ko bàyyi kon nag bàyyil loo xam ne kenn mënu kaa am jéem a dab loo xam ni kenn du ko bàyyi maanaam na nga a gërëm loo kontaan loo sa borom te bàyyi di jéem dox ci jéem a këram gërëmloo ak kontaanloo nit ñi ndax loolu mënta nekk mënoo gërëmloo nit ñëpp mënoonoo mënoo def lu kontaanloo nit ñëpp comme ñim ñëwee ci xadis bi suñu yaay Aïsa radiallahu anha mu ni yonente bi alayhi salatu salaam nee na képp ku sàkk jéem a kontaanloo nit ñi ci loo xam ni dañ cay am ku sàkku kontaan loo borom bi subhaanahu wa taala ci loo xam ne danga cay am merum nit ñi nee na yàlla dina kontaan ci yow waaye def nit ñi ñu kontaan ci yow waaye képp kuy sàkku lu neex nit ñi ci nga koy def ci lu naqari borom bi nee na borom bi subhaanahu wa dina la mere def nit ñi mere la xadis boo al imaam albani saxeex na ko mbokk jullit mi kon na jéema sàkku ngërëmu sa borom subhanahu wa ci lépp loo xam ne yaa ngi koy wax wala yaa ngi def te nga def sa kanam benn objectif benn bii mooy fexe ba def loo xam ne day kontaan loo borom bi subhanahu wa su ko defee yàlla dina la defal nit ñi kontaan ci yow waaye nangul la mbokk wax ma su fekkonte ne dangaa dem ci jotaay boo xam ni sa mbokk jegañaale wala sa xarit moo ko woote nga toog ci biir jotaay ba ñuy commencé di xuus di wax ci mbiru diine loo xam ne amuñ ca xam-xam waaye di teg lu ñaaw ci ñu baax ñi ak ci boroom xam-xam yi ndax dangay noppi pour bañ sa xarit ji mere la wala ndax danga leen di fàttali li nga xam ni moo mooy li jaabu suñ la déggalut nga xam ni amatoo place ci jotaay ba nga dem sa yoon comme ni ko borom bi subhanahu wa taala waxe bu ngoon gisee ñoo xam ne ñu ngi xuus ci suñuy aaya nee na nga leen dëddu ba keroog ñuy xuus ci wala nañ waxtaan woo xam ni mën nga caa bokk comme ni mu ko waxee tamit ci beneen aaya ni wa qad nazzala alaykum fi lkitaaba an ida samitum ayati llahi yukfaru biha wa yastahzu biha fala soo gisee wala nga dégg ñoo xam ne dañuy dugg ci li ñu war dugg ci mbiru diina loo xam ne yow mënoo kaa dindi kon yow amatoo place ci jotaay boobu bu dee foo toogoon da nga fay jógee bu nga tëj ko wala nga jóge fa wax ma tamit su fekkente ni dañ la woowoon ci benn xeexoo moo xam ngénte la wala yi ni mel yi fa ndax dangay noppi bañ wax ngir bañ ñu ayibal la naan dangaa metti wala dangaa tar wala ndax danga leen di laayee biir pour ñu fay lool wala ñu dindi ko comme ni ko yonent bi waxee ku gis ci yéen ko dindee ak su ko mënul mu dindi ko ak làmmiñam su ko mënul mu metti lu ko ci xolam ndax loolu ngay jëfe wala ndax rek dangay toog ca ba su fekkente ni laayee biir ko ñoom jëlul la pour bañ rek ñu ay ayibal la wala ñu tagg sa diggante ñoom wala ndax da xam ni jotaay boobu na fa place nga daal di jël say jubal ci buntu ba dem sa yoon kon yooyu yëpp ay mbir yoo xam ni kenn bu nekk ci ñun da lay arrivé ndax nag léegi da ngay jub nit ñi bañ a wax wala ñu lay xas wala ñuy wax ci yow loo xam day mënul da ngaa métti te ñoom xamul ni ñoom ñoo sàggan wala ñoo bañ a def li leen gën a digal ndax foofu da ngay def li lislaam santaane ngir daw waxu nit ñi wala da def li lislaam santaane ngir am ngërëmu nit ñi loolu kenn ku nekk ci ñun moo koy lu bon loolu nga xam ne moo fa gis moom nga fa gis dañuy ragal ni suñ borom subhanahu wa taala doon loo xam ni moom nga bon Israël doon def dal sa kaw maanaam subhaanahu taala dal sa kaw subhaanahu taala bi nga ne dañ leen rëbb ñoom wax la tax ñu rëbb leen ko dalika bi ma asaw an munkarin faalu li naan mooy borom subhaanahu taala ak di di weesu fi leen yemloo di bañ déggante li nga xam ni ak terante li nga xam ni lu bon Sufyaan As-Sawri rahimahullah dafa ci Ibn Abi Dhi'b rahimahumullah ko yow de boo ragalee borom wa taala mu fegal la lépp loo xam ne moom nga ragal ci nit ñi waaye boo ragalee nit nag nit ñi bu la yàlla dee duma mënul laa jàppale ci dara te mënul laa jëriñ jëriñ dara ci borom bi subhanahu wa taala kon maa ngi lay dénk bi subhanahu wa taala Ibnu Rajab ni koo xam ni wóor na ko ni bépp mbindeef nekk ci kaw suuf suuf la koo xam ne am na ko wóor ni bépp mbindeef bu nekk ci kaw suuf suuf la nan lay jibalee topp loo xam ni suuf la ci topp ki nga xam ne mooy borom mbindeef yi mooy boroomam subhaanahu wa taala nan lay jéem a kontaanloo di bégal koo xam ne suuf la ci loo xam ne almalikul wahaab di borom subhaanahu wa taala da cay ñàkk mu ne kii def loolu danaa xam ne ñu ngi def lu yéeme inna haada la shay'un ajab kon mbokk yi ñu xam ne kon loolu lu ñu yàgg a dégg la waaye noonu la saxe def lu kontaan loolu ñëpp mënta nekk ndax suñu borom mu ne wallahu wa rasuluhu axaqu an yuttuhu in kaanu muminin yàllaa ko yonanteem ñoo gën a yay pour ñu def li leen di bégal ñu def leen di kontaan loo su fekkee gëm gi ñuy woote woo ñu ngi ci ñun waaye jéem a kontaan loo nit ñi mënta nekk ndax yi tax mënta nekk dafa bari loolu ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala kan mu defal ñu tawfiq ba ñu mën di xëy di compte ci lu koy kontaan loo waaye di jëflanteeg suñuy mbokk jullit comme ni ñu ko santee moo xam dañuy xas wala dañuy wax wax joo xam dañuy wàññi waaye bu ñu borom bi kontaanee ci ñun bég ci ñun lu waaye mën a wax du la wàññi dara waaye bu ñëpp àndoon gërëm la te borom bi mere la loolu du la jëriñ dara allahumma ighfir lana dunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin wajma ala alhaqqi kalimatana wa allif bayna qulubina wahdina subula alsalam wa akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur allahumma ij'alna mimman 'abaduka kama turid أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اقض ديوننا واستر عيوبنا وأغننا من فضلك وأغننا بحلالك عن حرامك اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا الفردوس الأعلى وأن تعيذنا من النار اللهم إنا نسألك صلاح النية والذرية اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح وأصلح الأئمة وولاة الأمور